nañ wax parce que parti bi ñun ñëpp ñoo ko bokk day am ñu jiitu ñu jox leen responsabilité waaye ci parti bi ñun ñëpp ñoo yem ñoo yem dayoo ñoo yem responsabilité li ma ci war moo ci war kenn ku nekk ci yéen ku ci nekk ci yéen li mu am mooy jël coonoom jël jotam def ko ci parti bi bu doon alal dongay politique dama ne kon PPC am lii parce que sama diggante kenn ku nekk ci yeen du diggante alal du diggante khalis vous n'êtes pas des militants élémentaires vous êtes des militants engagés pour le parti pour le devenir de Rufisque pour le devenir de Bargny pour le devenir du Sénégal kon lool motax ñu and man ak yeen kérok waxna ministre de la femme waxna ak la présidente Oumy Diakhaté mii néna nee li fi dugg ci financement Tëngéej femme PPC amuñu ci woon

ba ma ko waxee daf mané président lolou erreur la waye inshallah dinañ ko rattraper rectifier ko nang ma jox ce numéro présidente des femmes dina ko wo jox naa ko misis ñoom itamit waxtaan nañ pour que lepp luy am ci réew mi ngeen gis ci sen bop may gërëm bu baax le ministre de la santé Ablaye Diouf Sarr ba mu ñëwé di voter budget assemblée nationale ci la ko saisir ne monsieur le ministre dañu am tëngëj dans le domaine de la santé, un quartier comme Darou Rahman, il y a près de 30 000 habitants. Darou Rahman a un poste de santé, une maternité. C'est là bureau, là où le directeur des infrastructures et des équipements du ministère, la GEM, Amad Diouf le Nous président Seydou poser un problème légitime. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le régler Séance tenante. Séance tenante le ministre Abdoulaye Diouf Sar une instruction nous dégager dans le budget pour Rufisque 100 millions 100 millions yoyu, mu faire fan on le met à la ville où à la femme ko monsieur le ministre mettez les crédits dans le budget de la commune de Rufisque Nord parce que faut la nek. Rahman man duma maire Nord du le maire Nord dama bëgg ñu déglu ma bu baax parce que dafa am lo xamné je ci le man du maire Nord waye suma je ba ministre de la santé mu d'accord ne 100 millions def budget commune de Rufisque Nord ma suis le maire du Nord nord. Euh, Omar Mané xamal Koko, ko ko maire woo docteur Cham qui est le responsable du district ma ne ko est-ce que jàpp ngeen ne Darou Rahman poste de santé bu ànd ak maternité mu ne ma loolu soxla la ci Darou Rahman ak ci Tëngéej. maa woote finance ne valider leen ñu engagement bi waaye ñu valider engagement ba virer xaalis bi ci compte Rufisque Nord li gën a rafet mooy bu ñu def première pierre ñu war ma mën a woo man mi nga xam ne maa ko dox maa ko wax pour loolu mën a nekk. foofa ñu war fa yóbbu 80 millions te man mané nañ yobbu fofu 80 millions yenen 20 millions yi mané nañ ko def ci poste de santé nimzat bi nga xamné mo nek wetu daro ndar bu ndaw parce que fofu dañ doon jema défar maternité depuis près de 4 ans ñu jema défar maternité mënul sorti lool motax mané 20 millions yi nañ ko def fofu kon man Wa ñu zaat ak ñoon wa kon bang? kon man lima war en tant que député en tant que député la wax lima war Manko je reste engagé dans Benno mais j'attache beaucoup de pi au sort de ma ville